Euh, Toumani une des stars de la série Infidèle Miss Sakhos tey nga ñoo teew ci sa bisu frère muy lancement albumam muy Ngaaka d' abord un par rapport ak Ngaaka mu mel ni indi indi nga beneen facette ci sa jëmm côté rap nu mu demee noonu. non du du man côté yëpp quoi côté yëpp donc donc comme ni yow nu ma ko doon waxee sànq rek mooy que Ngaaka sénégalais la man sénégalais la ñu ñëpp ay sénégalais neen donc Ngaaka jeune la man jeune la donc pourquoi pas ma ñëw jàppale sama mbokku jeune donc réussir nga xamante ne dama koy ñaanal disque d'or ñaanal ko feneen comme lu may ñaanal man amuma sikk sàkka benn rappeur benn bépp jeune rappeur sénégalais bu nekk si kaw suuf senegal maa ngi ñaanal nga réussir quoi vraiment man ñoom ñëpp laay ñaanal ko. au delà de ça yaa ngi incarné benn rôle boo am solo ci infidèle donc ñu ñëw ci sa ci sa ci bi nu mu demee noonu. mais xaw ma loolu noonu moom sincèrement baax la dama ko leb tuuti quoi ba nga xamante ne. ba kilifa yi jox ñu ndogal xama rek ma dugg si kii boobu noonu rek incha allah incha allah waaye. tey bëri na gone yi leen di seetaan ci série amaa bu nu comprendre dañuy jéem a réincarné waat seen nu rôle yooyu noonu ci vie réalité bi quoi d' abord ban message. ak ñiy seetaan léeg-léeg dingat yi léeg-léeg ñàkk comprendre bi naka la demee noonu. waaw mais xam nga ñun euh, dañuy dañu nekk ay artistes yoo xam te ne on donne des leçons joxe message message la message message ñuy joxe tamit donc euh, pour pour pour suñu rakk yi suñu frères yi pour ñu si pour si jëriñoo rek la quoi loolu la rek yeeta la rek quoi mais du du dara quoi vraiment. peut pour bañ la te tey euh, bokk na ci li jeunesse gi di dund mooy ñàkkum liggéey. immigration clandestine tey ngeen am chance nekk ay acteurs pourquoi pas ñu séntu leen ngeen incarne ay rôle yoo xam ne da ngeen di gën a sensibiliser ci wàllu woowu. waaw mais nan leen wax ne bàyyi fopp la méttee bro billaahi comme nun koy waxee rek njëkk yuuxu rek loolu wax quoi mais vraiment maa ngi ñaanal sama mbokk jeunes yi nanu muñ rek pep moo gën a yureet quoi vraiment lu jot yomb loo war a am si kaw suuf kenn mënu si dara loolu sunu borom ne yow lii da nga ko war a am saa su jotee rek. dina ñëw mais wërsëg kenn du ko xëcc su jotee rek lay ñëw quoi mais soo xëccee rek mu dellu faal donc nanu xaar incha allah te muñ rek faal fëpp la métti ah, mais gars yi yuuxuwul rek muy yow di man di keneen ak keneen xam nga peut-être que bañ pet sunu dignité rek la quoi mais du du du dara mais nanu muñ rek quoi xam ne incha allah loo war a am rek di ko am xam nga waaw noonu la grand jaayoo moo